li ñu indi fi tay moy d'abord euh, sante yalla, sante jeune. yi nga xam ne ñoo Tabangoy c'est un programme bo xamni ni président de la République moo lancé ci Sénégal yépp mu né dafa bëgg Sénégal propre un Sénégal zéro déchet manam Sénégal goo xamni amatul salté amagul tilim amatul ay mbalit té lolu pour mu def ko il faut que ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci quartier yi ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk dëkkaat yi ñun ñi nga xam ne ñoo ci collectivité locale yi day jar ñun aussi tamit quand même ñu def programme bobu une réalité parce que ñun ñoo ak mom ñoo bokk parti naka sa président parti nak ak sa ak sa programme bu ko jëlé pour nga rendre ko visible il faut acteurs yi nga xam ñom ñoom ñooy ñoo ak mom quand même ñu fexé ba def ko réalité réalité bu mom moy ñun au niveau de Kaolack dañu wax ni nañ def quartier bu nek semaine bu nek ben quartier un week-end un quartier fexé out ay matériel matériel yi comme nima ko waxé dañu liggéey ak la présidente du conseil économique social madame Aminata Touré dañu liggéey nek membre de son cabinet ñu yaakaar nag ni conseil économique et social dara ëpp ko gëdd dara ëpp ko waru garam pour que liggéey boobu président soob mu sóoble ko ci donc loolu benn fànn la ñaareelu fànn bi moom mooy nekk ay habitants Kaolack ñu nekk ay doomu Kaolack doomu dëkk bi nekk ànd ak président daal ci biir parteem mu lancer programme am ñu ne programme boobu dañ ci am cër dañ ci am ndox moo tax man ni naa ko def ce qu'on appelle un week-end un quartier mobiliser les jeunes mobiliser sensibiliser leen fexe ba ndaw yi ak ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci quartier yi jigéen ñi góor ñi ñu xam ni affaire sont set affaire état kese nekkul affaire pouvoir public mais problème population la population La population est a approprier train ñoo faire des ni ñun kat du de faire des ñun ñoo est en ba cet cet choses. suñu est en cadre de vie tamit condition yu des ñu donc ma y a sensibilisation bi ba mouvement bi quartier matériel ñu en quartier yi quartier mobilisation mobilisation bi ñu def ko def sensibilisation bi yaakaar naa ni danañ ci mën a génn man nag damay faral di wax ni nañu bàyyi di ne Kaolack dafa salté Kaolack dafa salté Kaolack dafa salté ku nekk toog fi nga war a toog télévision yi radio yi internet bi mais Kaolack mënut a salté Kaolack problème moom mooy ni dañoo am problème gestion des ordures dañoo am problème mu fu ñu tuur mbalit dañoo am problème ku ramasser mbalit mi mais dañoo am problème du jël mbalit di ko yóbbu loolu nag loolu nag loolu nag du amee. dañoo war ay jumtuwaay ut ay pexe suñu pexe bu njëkk moom mooy ñu fexe ba ut ay matériels yoo xam ne dañ ko jàppale gane yi ci ci ci dëkk bi dimbale leen ko xale yi nag mën nañoo buub mbale yi mën nañoo bale mën nañoo buub mais fu ñu tuuru fu ñuy tuuri mooy problème bi donc loolu loolu autorité war a jël ñaareel ba moom mooy nii du am lu wax conscience citoyenne mënuñ fexe rek nekk ci dëkk ku nekk naan ah lii kat nguur gi la war lii kat monsieur la maire la war lii kat monsieur la war lii collectivité locale bi war lan la li la war moom mooy nga war a xam ni d'abord doomu Kaolack nga da ngaa war a engagé wu pour Kaolack mën a set da nga war a engagé wu pour Kaolack mën a jëm kanam loolu nag dama ciy oo ñëpp du wax ni xarab kenn du ma suul kenn may dëkk bi ñoo ko bokk dëkk bi ñu ko bokkee nag ku nekk da nga war a béy sawaar waar doo béy sa ñun ñëpp ñu mën ko bokk góob ko suñ pour suñ njaboot góob ko pour dëkk bi maa ngi leen sant bu baax te di leen gërëm